auzu billahi mina seytaani rajiimi bismillahi rahmaani wa barakaatuhu dinaa bin sant yàlla julli yonantam ba seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye mën a nekk ñëw leen di ziar di leen ñaanal jàmm gudd fan wér xéwal yaa defar àddina ak alaaxira rawatina yéen ñi abonné ci Daaru Salaam Sifaahu Daaru Salaam Sifaahu dana seet bu la seetalee wax la sarax wala wax la sa cangaay foo man dem defe jiko fa nga dem defe jiko fa tey dañu leen indi waxtaan ci poftan poftan nag nga pare nag ñuy wax ne vidéo bi ku ko jot na nga ko tasaare ndax lu am njëriñ rek la te dañoo bëgg ñëpp jëriñ ci poftan nag garab la bu ko xam ne suñ borom moo bind garab yëpp waaye garab la ko am garab gu jege nit ñi la te gisoo kenn di ko làkk kenn di ko def dara muy lu yéeme moom poftan garab la goo ne nii mën naa ubbi doomu garab la goo xam ne nii mën naa dindi liggéey bu nekk ci nit garab la goo xam ne mën naa dindi cat lu nekk ci nit kon poftan lu yéeme la foofu garab yëpp tamit moom moom poftan sawara waaye garab yépp tamit raisin rek moo ci ëpp sawara waaye poftan moom moo ci sawara ndax sawar bi mooy tax muy tàkk toftal nag yow mi ci bëgg a toj liggéey am na ay yoon yu bare bare bare waaye dama la ci jox yoon yu yomb rek te gaaw da ngay xëy bisu alxames soo ko mënee suba teel naka ci gën wala boo ko mënatu nga xëy bisu altine suba teel moo ci gën wala bu jant bi suba teel gi naka gën moom wala bu jant bi sax nga dem ci poftan bàggee nga tari fàllaxi ak naasi boo ko mënul nga tari faatiha rek ne ko naam lëy boo taree faatiha pare nga ne ko naam lëy nga dagg fi juróom-ñaari xobi poftan juróom xob ba fa daggee ba pare nag nga ñëwaat sa kër xob bu ne nga bind ca يختارون يعتبر يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كذب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد nga bind ko ci juróom-ñaari xob yépp nag ba pare nga def ko ndox jàmb ko jàmb ko jàmb ko la sangoo ko juróom-ñaari fan kooku de liggéey bu fekk ci doomu aadama da koy toj demal ci poftan nga jàng fa faatixatul kitaab nga ne ko naam lay ba pare nga dagg fa juróom-ñaari xobi poftan nga ñëwaat sa xob bu ne nga fomp kom set nga bind ca tabar yada ba saar wa jeex xob bu nekk muy juróom-ñaari xob nga am juróom-ñaari tabar yada nga wutu si wa wala cinq litres nga dem ko ci jàmb ko bàyyi sangoo ko nag juróom-ñaari fan icartus ci borom kooku lay raxas yaram day setal yaram ba tey am na beneen yoon yow mi nga xamante ne nii tamit danga ngaa jàpp ne ba tey dañ laa liggéey demal ci poftan nga wut fa juróom-ñaari nga wut fa ñaari doom ñaari doom ngay wut mais bu la neex dem nga def ko ni may bëgg wax ne boo wutee juróom-ñaari xob xobu nag bin ci tabar ya daa ñaari doom poftan doom bu ne nga bind ca fàllax ak naas nga def ko ci biir ndox mu ba tey nga jël fàllaxe bi ak naas bi def ko ci biir xob naa ngay jël ñaari doom yi doom bu nekk da nga ciy bind fàllaxe bii naas bii fàllaxe xool avancé bi fàllaxe bii xool avancé bi naas bi nga ci bind ba mu jeex ci doom bi ci kaw doom bi koy bind ba pare nga def ko ci ndox ba mu wàcc nga sangoo ko juróom-ñaari fan boo ko sangoo juróom-ñaari fan ba pare nga jël benn doom bi teg ko ci suuf nga dëgg ci mu toj ca loo tànkum dejoon la nga njëkk a mooy benn doom bi nga ne ko li ma jàppoon bàyyi ma banaa nga jëlaat tànku càmmoñ bi dëgg ko ne li ma jàppoon bàyyi ma banaa la tamit wala nga yéene ne ci man daal lépp na dem lool tamit ba tey day toj liggéey ñaari doomi poftan doom bu nekk nga bind ca fàllax bii naas nga dëgg ko su ñaari tànk tànku lajor ba na ngay jiitu moom fàllax bi bu la neexee tamit fàllax bay jiitu naas bi topp kooku tamit ci kàttan suñ borom day kon ñaar yooyu yëpp day am ay yoon la yoo xam day toj liggéey loolu tamit ba tey nga dem ci foftan yow mi nga xam ne nga cat dalaa jàpp wut fa ñetti xob wala nga wut juróom-benn xob juróom-benn xob ngay wut xob wu nekk nga bind ca ñett yi dañ ci bind xol onze rabbi falaqi ba mu jeex yeneen ñett nga bind ca xol onze rabbi naasi ba mu jeex nga def ko ci ndox tamit di ko sangoo ñetti fan kooku tamit lu gaaw lu ci cat da ngay dindi waaye bis bu nga koy wut mooy alxames wala altine suba teel moo ci gën wala gannaaw bu jant bi sawee nga dem nga wut sa ñett juróom-benn xoy poftan xob wi nga bind ca fallaxi ñetti yoon xob bu ne nga bind ca fallaxi ba mu nga bind ca naas yi ba mu ñetti xob nga dem def nga sangoo kooku dem day dindi cat ci nit yow mi ci wàllu poftan nga xam ne luy ubbee da ngay demaat poftan altine ci nga dem nga wut juróom-ñaari xob na nga koy wute mooy fatiha ginnaaw fatiha nga ne ko naam lay nga dagg sa juróom-ñaari xob nga ñëw sa kër toogaat nga bind ca xob mu nekk alam nasra lakka sadraka wa wadaana anka wisraka allazi anqada zahraka wa rafana laka sikraka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa iza faraxta fansab wa ila rabbika farxab ba juróom-ñaari xob yëpp mat xob wu ne danga ci bind saaru alam nasra ba pare nga def ko ci ndox yow cinq lay wala di dix litre nga wut boobu ñuy wax misk wala beneen parfum boo xam ne boobu alcool nga def ko ci loo tëju tëju ak loo umu umu nga sangoo ko juróom-ñaari fan ci kàddu suñu borom da nga gis dara bu jeexee bu neexee da nga koy def nag sept fois trois muy vingt et juróom-ñaari juróom-ñaari fan njëkk bu jeexee da nga dem wutaat juróom-ñaari xoy poftan comme nañ ko bindee ci alam war ko juróom-ñaari fan bu jeexee nga demaat wutaat juróom-ñaari xob xobu nag bin ci aram nasra sangawaat muy vingt un trois fois sept vingt un kooku lu yéemale ci wàllu ubbi doomu aadama ba tey yow mi bu la neexee tamit nga leen poftan nga gis tóor tóor yi yi ubbeeku nag laa wax bi day toll xam tóor tóor yi day ubbeeku yooyu ubbeeku nga wut ci tóor tóor lu bari boo ñëwee nga teg ko sa néeg weer ko ba mu wow ci biir néeg nga weer nag ci ker ba pare nga sàjj ko nooy nepp nag nga ko sàjjee ba nooy nga teg da nga lu xaw a takku nag waaye tóor-tóor bi ubbeeku lañ la wax kooku dañ ubbi doo waadama nii nag na ay yoon wala neexee tóor-tóor bi da koy weer bam yow si biir nekk nga sàjj ko mu doon sunguf ngay comp di ko sangoo yow mi mënta bind boo mënee bind nag da bind suyu na naas yi subbul saxawaat boo deme ci dongaari boorom ko la dana la ko wax suyuna li naag sumbu sahawaati min annisaay wal banina wal banina wal qanatira al muqanatiraati min al zahabi wal fiddati wal xayla al musawamati wal anam wal xarsa saalika mataamu xayawaati dunia ngay bind juróom yoon bu la nga def ko ci ndox li nga bind ci suyuna bi boo pare nag nga xaase ko loole nga waral bam noo ca tóor-tóoru poftam am na nga ko waral ba mu nooy nga koy kaase bi nga ko kaaseel nga def ko sunguf rek lu bari mën naa bari bu la neexee sunguf si waaye boo ko ko kaasee de léeg-léeg nga comp yi def ci ndox sangoo danga ubbeeku da nga am danga am bayre bu la na bëgg boo ko bind 70 muy adadu kun moo ci baax juróom-ñaari baax na waaye adadu kun baa gën juróom-ñaar fukk nga def ko saafara nga fexe ba kaase ko loolu nga wutan ci tóor tóoru poftandu di camp di sangoo bi kay bu yéeme la moom boole ko dana am bàyyi ba tey tóor tóor boobu am na beneen yoon boo la boo mënul li wax suy na bi da ngay bi ubbeeku nga si biir néeg ba nga sàjj ko am doon sunguf ba tey boo ko sàjjoo am doon sunguf léegi nag nga bind alam nasra lakk sa dara ba saar jeex nga def ko saafara mën nga kaase ko loolu léeg-léeg nga comp ca sangoo léeg nga comp ca sangoo moom it dana ubbi doomu aadama léeg nga comp ca rek sangoo lu baax la ci ubbi doomu aadama alam nasar ngay bind juróom-ñaari yoon nga wut tóor tóor boobu san bi yi ubbeeku nga sàjj ko ba doon sunguf nga kaase ko léeg nga comp ci sangoo loolu tamit lu ubbi doomu aadama la dana bu amee ñaari bu mënee ña boo amee ñaari rek day day yomb xiwalam day yomb ndax garab gi mën naa toj liggéey mën naa dindi cat mën naa ubbi doomu aadama te lu ca desati doomu aadama ñaari yooyu rek nga soxla lu koy bañ a yàqal ak lu koy indi dara kon foofu dana googu loolu la ñuy ñëw tey jii di saar di ñaanal jàmm gudd fan wér xéwal yaa defar àdduna ak alaxira wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aousu billahi mina seytaani rajiim